ñëw ci combat bi doole bi làmb am actuellement nii au Sénégal làmb xew foo dem làmb ji làmb ji làmb ji kër yi néeg yi bureau yi tool yi entreprise yi fépp doole boobu làmb am jërëjëf dafa yokk daal macha allah ah, jërëjëf El Hadj maa ngi doog ñëw ma nuyu assistance bi mhm. Mbaye Jacques Diop mon ami et frère ça fait longtemps mhm. que ñuy euh, vivre ensemble coach Moussa aussi moo ko gisee ci plateau bi j'étais très content juste mooy dugg si mu wax ci état physique mbër yi ça c'est important ku nekk da ngay wax li nga xam rek boo waxee ci li nga xam rek vraiment dafay tegu si yoon et làmb nag Bécaye gis nga rek musul am tànk ginnaaw kanam rek kanam malheureusement je dois dire heureusement bu où le moment est venu à jamais que ñu jël làmb gën ko defar gën ko tàggat loo xamante ne ci Sénégal moo rek moo fi am possibilité mm-hmm. euh, regrouper trente mille personnes yu toog à part le football te si si c'est le football. c'est l'international c'est hmm. l'international donc war nañ ko gën a ñoŋal gën ko defar mu gën a jekk surtout que léegi. Hmm. design beeg si waa ni ñu defaree stade bi. Hmm. jekkal ko nit ñi bi ñëwee nañu discipliné suñu force de l'ordre yi mobiliser woo. mais bi ñuy bëree doguma la sama xel yëpp ci yow la ne. damaa gis sa taxaw ak Modou Lo ma ne xalaat ne ñoom Moustapha Gueye. fi ñu yóbbu woon làmb est-ce que tey ji boo yi ba tey même bu delluwul ginnaaw yaakaar naa ne am na jéego bu mag moo xam ne def na jéego bi moom vraiment ah. am na ci côté spectacle waaw am ci côté plein de chose ndax léegi gis ngeen euh, avec euh, magie wu internet ak mhm. télévision mm. support yi am léegi bu njëkk ñu sax bu ñuy bëri amuloon ñun suñu mm. support mm-hmm. RTS rek la woon RTS rek la woon waaw suñu ceexitu mm. carrière lay ay deux ñëw ak yeneen yeneen yëf yi quoi mm-hmm. donc ñu gis ne tey làmb ji de spectacle bu neex moo fa am. Mhm. et surtout nag quand même le grand combat. Mhm. et mi ngi terminé par victoire de Modou Lo porte avertissement. Mhm. et une victoire nag reste une victoire. ça c' est une chose. mais qualité bëri bi aussi c' était extraordinaire parce que mbëri làmb li ñu ko soxla mooy mbëri yi dóorante songante bërante. malheureusement dafa nekk nag à ah, sens unique quand même. quoi qu'on dire sur combat bi dañ gis ne les plus de efforts. et c'est Modou Lo qui le faisait. Mm-hmm. moom mu acculé mooy jéggiloo adversaire am saag yi saako yi. donc mérite Siteu toujours rek mooy mu ngi bëre koo xamante ne. ñëpp dañ jox waa ji quatre vingt dix neuf sax pour cent. favori favori. boobu ci mu Siteu amee lii dafay crier victoire. Mm-hmm. le camp de Siteu a crié victoire dem ñibbi ah. ñu ngi tëgg seen ndënd di bàkku jëm. jëm jàmm gën jëm jàmm gën surtout nag ak site bu litigieux boobu nga xamante ne am na fa ñu naan kii di am na kii nag dafa laaj xam-xam arbitrage mhm. pour ñu mën a nettali Sénégalais yi li lan mooy arbitrage Sénégal dañu des si xam arbitrage mhm. y a des gens qui m'envoient des messages sax pour wax ne mais si daan na ko te waxu leen si te daan na ko mhm. ah non non non non du ñu wax si daan na ko parce que si te daaw ko parce que bu dee règlement laa indi di ko teg rek si te mënul am victoire ci boobu ci boobu situation waaw ok Modou loo teg na mbaggam. teg mbagg. chute la bu loon ci digg géew bi. Mm-hmm. dañ koy homologué rapidement. Mm-hmm. mais nag pour expliquer dama xamul ndax bëgg nga. ma expliquer léegi lii chute. bi léegi uu ah, ñu bàyyi ko ba ci kanam. Moustapha loolu ñu fi indi. non parce que comme que dama dañu amul chance amugum les loolu mooy problème léegi nag image yooyu nag à part de zéro heure dañ koy am. à part de zéro heure képp kuy télévision mbaa ngay rajo mbaa site internet. am nga droit teg làmb ji. Mm-hmm. ñi tëgg seen làmb minuit lañ jox deadline. ñëpp ku mun doon ñëpp mun a wane. bu na fi minuit bu nu fi bu nu fi minuit fekkee. non minuit mënuñu fi bañ a fekk parce que 23h. Euh, pile moo jot pile. 23h ah. pile moo jot. on encore la chance de faire une heure de temps. Ah. kon boog léegi loolu mu ekk ko lokk ko rek. <laughs> ba bu minuit pile jotee Karajo suñu réalisateur. waaw kon Karajo prépare minuit pile ñu wane ko minuit a commencé li ngay li wax. pekaay li ngay wax di ko expliqué bu doomu aadama comprendre ko day fekk ñu koy gis ci image boo ko waxee nii rek te Sénégal yi tamit ñu ci bari amuñu occasion seetaan combat bi parce que mu ngi doon jaar ci pay per view ñëpp dafa ñu pay view Sénégal yi nga xamoon mooy waxtu làmb jot 2STV toog dañu ko woon direct. Uh-huh. béykat yi di xaaj gauche. waaw Paala jaar fi Moustapha Gueye jaar fii ñu koy seetaan. mais moment bi ñu toll nii comme que nag jamono soppeeku ba léegi pay-per-view nekk. Uh-huh. sponsor ak valeur uh-huh. ajoutée. ñu ñu xaar rek ba heure bi ñu jox autorisation. muy zéro heure pile. zéro minute benn seconde. ñu mën a xool tuuti ci image yi. nga xamante ne woon ñu ko surtout chute bi daanu nag daanu. daanu nag daanu ñu am xam-xamu nag nettali leen. lan moo tax mais moom am am ñoom ñaan ñëpp ngi ci suuf. am na lu fa am la fa am lan la arbitre yi ba nu jógee yaa ko wax waaw arbitre yi ñoo xam règle la bëggoon ma ànd ak image rek non non yàqul dara dañuy waxtaan rek anticipation mooy lan amul benn mbër bu mu nekk ci ginnaaw saa gi di am victoire di am victoire loolu rek mooy fausse bi Siteu mhm. bu fekkoon place bu Modou Lo la nekk dañ koy jox victoire mhm. bu Modou nekkoon ci biti Siteu nekk ci biir voilà Modou Lo def action boobu. voilà le fait que Modou Lo mi ngi ci biir enceinte bi rek. waaw zone de vérité bi rek. dañ ko jox victoire. dañ koy jox mais c' le contraire. Modou Lo mi nga xamante ne moom moo doon mbagam. ci suuf mi ngi ci zone de vérité bi. mi ngi ci suuf mi te ci mi ngi war a jiiñ victoire bi. man nga ca biir zone de sécurité bi. voilà boobu zone nag dañ fay daanu rek mais duñ fa daanaate pour mu leer neex a expliqué rek. Mhm. mooy cité même bu Modou Lo jaaxaanoon foofu. Mhm. kenn du ko jox victoire ndax mi ci biti. pour mu leer bon te it ko fa yóbbu. te Modou Lo ko fa yóbbu. te Modou Lo bu ko fa yóbbu tamit. da ko doon jéem a pousse pour mu daanu. pour mu daanu non mhm. a génn mu mu sar. daal di dóor épaule bi ak élam. élam moo ko yóbbu nekk ci biir kenn ci biti pour Sénégal xam lu arbitrage kenn ci biti munul daan ki ne ci biir ki ne ci biir rek falaa budd moo mun daan ko ne ci biti pour mu leer loolu rek mooy arbitrage bi sinon mhm. chute am na chute bi mooy Modou Lo doon na mag bi mais chute bu ñu dul validé la ndax ki moom chute bi non seulement sax créewul chute bi mais mi ngi ci en dehors des sacs des sacs fi mu nekk nag mënu fa am victoire pour mu leer pour gars yi comprendre ne làmb ji ñetti géew la benn géew bi mooy fi ñuy daanantee mm-hmm. kuñ fa daan daanu nga mm-hmm. zone bi ki toppaat mooy fi Cité nekkoon zone sécurité mooy zone de sécurité foofu dañ fa def pour mbër yi bañ a dal ci saaku yi mbaa dal ci xeer bi ba ca toppaat na ba gën a yées gën a bon mooy ba ca toppaat am na beneen troisième boo xam ne mooy zone hmm. bi sax daaw moom ba ca biti bi si te nekkoon daan ko ba hmm. amoo victoire te pourtant yenu ko ci diggéey bi daaw moom jaay schéma ñee hmm. dem ba ne mooy chute bi ñuy polémiquer pour ñuy polémiquer léegi ñu ñëw ci forme ñaari mbër yi. Moustapha coach yàgg nga entraîné mbër. mais yaakaar naa ne Modou Lo tey indi na volume boo xam ne ëpp na ci contre Siteu mu de point de vue loolu am na wala amul. am na ci dama ci ànd ak yow mais balaa may yegg foofu nga may ma mu nuyu. merci beaucoup coach Moussa le grand Moustapha ci reconnaissance bi mu am. <laughs> parce que moom mën nañu di ñu duggal ci làmb. Mm. di rendre hommage à travers lui sunu grand bu baax muy Lamine Seye. xam na ko grand tailleur ci moom lañ doon jaar ak ñoom Balla Samb pour mën ko gis Balla Samb ndeysaan ah, j'ai eu à entraîner beaucoup de lutteurs hmm. ma amoon benn lien bu familial ak Yaxya Diop Yékini moom mu xam ko ñëpp xam ko bien sûr mais bu ñu bëggee làmb wala supporter làmb moom moo tax merci parce que ñu ngi juddoo Médina quartier bu ñu naan Ngaraaf hmm. di fa jógee di dem kër sunu maam sëñ hmm. Moustapha Sy radiyallahu taala anhu di dem kër ga Fass di si turandoom. Mm. doon ko supporter. Mm. tey fierté la ñu toog ak moom. merci beaucoup merci coach ci am yëpp. merci coach di la jox sa bu baax. jërëjëf jërëjëf. Père li nga wax dafa am solo tellement que Modou dafa nekk mbër boo xam ne constance bi mu amoon li ko ko may. Mm-hmm. da doon liggéey liggéey bi ma la doon wax la proprioception. la proprioception athlète bu koy mënti liggéey da ngay màgg. loolu mooy li Max di wax noo ko mën a waxee ci olof. ni ma ko mën a waxee ci olof mooy di nga am diggu dóomu. Mm-hmm. proportionnalité. tolluwaay xol bi du ëpp doole muscle yi muscle yi duñu ëpp doole xol bi. xol bi parce que da nga daan gis mbër yoo xam ne balaa ñuy jàpp après le combat. Mhm. ñu am forme bu étincelant. Mhm. parce que bi ñuy préparé ak deadline nu combat bi dafa tardé. Mhm. soom supposons ngay yar ganaar bu waree am quarante cinq jours. bu korité di jot mu mat. nga jël ganaar gi bi nga koy yar. waaw day romb quarante cinq jours te korité jotagul. du mat du mat est-ce que yaa ngi may comprendre. donc Modou li muy liggéey. dafa nekk lu américain yi jëlee ci ñun fii. Mhm. ñoom ñi daanañ ko def. Mhm. muy du HIIT. Mhm. wala high intensity interval training des entraînements à haute intensité par interval parce que boo xoolee ay mouvement d' entraînement am du doon benn. par ñaar ñett la. day am explosivité am rapidité am vitesse d' exécution la motricité et la mobilité articulaire bu koy permettre tey loolu boo ko réer. parce que volume bi mu sëfu. dafa xaw a joué tuuti ci loolu.